Siteu war na ndomba bu naw bu Siteu ngi dóor mu ngi dóor mu ngi dóor bu ndaw bàyyeegul bu Siteu bu loolu cee nga yàqu bu ndaw tëddal bu ndaw tëddal tarkindaa bu naw la eh, xoola bu Siteu Cheikh Oumar xoola bu Siteu mu ngi dóor bu naw ndaw bàyyeegul